Reportage du jour. Votre reportage du jour présenté par Sodoma Ndiaye. jaa ngeen programme la 103.0 premier radio scolaire du Sénégal Dabar FM dalen ak jàmm ci reportage du jour. tey seen reportage du jour dafay waxtaanee coow li nga xamante ni topp na sa Seck muy kàddu yi nga xamante ni génne na ko ci fan yi ñu génn daal di koy teg ci diine ji looloo waraloon naka ñu daal di dem seeti ñenn ci askan wi ñu wax ñu ana lan moo ci seen xalaat mbokk yi ngeen taaxirlu tuuti ñu daal di ñëw ak yéen ci yaatalu reportage yi. diine nag nekkul loo xamante ni dañu koy foye bokk jóg rek daal di ciy wax sa xalaat ku xamul nag danga war a daal di noppi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu Omar Traoré moom loolu la ñu dénk ku xamul nag dangay daal di noppi moo gën nag nga topp rajo yeeg télé yi di wax loo xamante ni amoo ca benn xam-xam bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu Cheikh Kounta Gueye moom loolu la xamle. Cheikh peut-être ok xam na ci diine dara wante na yam ci wàllu politique diine ji suñu borom tabaaraka wa taala sampal nañ fi ay ngënk yoo xam ne ku mel ni maam si Tuubaa maam maam maam Seydi Hadji Malick maam Limaamu Laay ñooñu bu bu diine ji taxoon comme ni ko sama projet waa ji waxee léegi bu diine ji taxoon leneen wala loo xam ne ñoo koy def te du te doon yoon kon ñooñu wax nu ko ci téere yi bu yàgga yàgga yàgga yàgg waaw kon idi na yem na yem wax politique a ci affaire yi yi muy wax droit il est musulman droit wax ci mais lam xam politique man rek non non non non non mais maîtriser mais euh, maîtriser c'est ce qu'il parlait là vraiment julit la vraiment mën ñu du julit mais aussi li ngay wax surtout radio wala télé li nga ciy wax toujours ay ponkol boof seen kër di gis loo xam ne yow gisoo yow mi nga xam ne yaa ngi wax ak di ak di ak di ak di ak di ak di bàyyeeku ci rajo yi wala télé yi tey nit a ngi tëdd fi ñu tëdd duñ génn duñ def dara di maanaam di xam li xew xam li xew li war a xew ak yow bala ngay wax ca loolee normalement loole war nga ko war nga koo war nga koo segg bu baax soo ko soo ko wax man daal li ma koy digal man man man en tant que citoyen comme lui ah na yem ci politique bi wax waxi politique am diine ji bu ko neexee na wax mais naam fu mu war a dugg fu mu war a dugg quoi wasalaam. loo xamul jàngoo ko waroo caa wax bu ñu sukkandikoo ci kàddu góor gi Moustapha Niang moom loolu moo di xalaatam. Moustapha Niang mais kooku kooku ay ay mbiram li mu wax tegu ko parce que tam. bu gëmee nii moom jullit la am na yoo xam ne waru ko wax ndax ndax man fi nekk nii boo gisee ma doon ragal wax ci rajo yu mel nii lii ko dal nii moom moom laa doon ragal mu dal ma waaye nag tey jii ñeme na maa wax ndax moom ndax lii mu wax nii tew ko fenn buy wax na wax ci wàllu politique te bàyyi fi diine ji diine ji moom bu mu ko jéem a toroxal na ko teg nee gëm li ñuy gëm te bàyyi leen ndaxte am nañu ay ñoo xamante ni gëmuñu loolu waaye waxuñu ñamu fekke woon foofee ci papangil ba mu weer diine ji foofee ñooñee waxuñu kon nag moom mën naa maanu loolu daal laa jamono dumay waxe kuréel amul dafa réew dañ ko jënd xaalis a tax mu def lii ak bëgg a jël réew mi moo tax mu def lii te bu dee lool rek la du ko am ci bi am nañ am ñu ko tontu ca tàng tàng ba mais ñooñee la ñu wax man moom ñoom laa àndal. ginnaaw ci loolu nag seeti nañu benn borom xam-xam bu nekk fii ci kër gi di wóyoo ci oustaz Gora Sy mu ñuy indil ay leeral ci kàdd yi nga xamante ni Idrissa Seck yëkkati na ko ci jamono yi ñu génn. man maa ngi tudd al oustaz Gora Sy. Eh, di jàngale ci école publique bu siinu xaali waaw foofu laay jàngale arab waaw ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci sangu-sang yi muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam allazi wulida fi ummil qura moom mi nga xam ne mu ngi juddee ci ndey dëkk yi muy màkkatal mukarram wala ganee àdduna e, yàlla yónnee ko fa mu woote fa fukki at ak ñett doot dem Medina ñëwaat ubbi màkka te bo démé ci suratul nasri sar bobu ñuy wax saru ndimbal yàlla ng koy wax ni ko ida jaa nasrullahi wal fathu wa raayta annaasa yadkhuluna fi diinillahi afwaajan fa sabbix bi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban bo xolé aaya bo xolé sar bobu rek nga sétantal ko bu baax di nga xamni ni ubbik màkka ga Euh, la ko yàlla digoon foofu ni ko bis dana ñëw nga ubbi màkka te boo xësee ubbi màkka ndimbalal yàlla da ko am foofu nit ñu bari danañ ñëw dugg ci islaam te loola ba mu amee ni ko yàlla waxee noonu la noonu la amee nga xam ni dig la bu ko yàlla digoon euh, baatu màkka itam wax dëgg yàlla ñëw na ci alxuraan ndax boo demee ci suuratul fatxi da nga fa fekk baat baatu yàlla ni euh, fii bat ni makkata muy lu leer fii batni makkata baatu makka ñëw na ni baatu bakkata ñëwee ci alxuraan noonu la baatu makkata ñëwee ci alxuraan kon xam naa ni wax jooju bu fekkee ni noonu noonu lañ waxee ni moom noonu la wax ni baatu makkate ñëwut euh, bu fekkee ni noonu la demee euh, wax dëgg yàlla njuumte la euh, dégg nañ ci nag ay ay ay wax yu bari ndax Euh, wax nañ ni moom moo wax loolu wax nañ ni tamit dafa xaw a sàllawlu euh, sang bi muy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni kenn waru ko sàllawlu ndax moom yàlla nee ne euh, binduma kenn ngir sama bopp yéen ñëpp dama leen bind ngir Seydina Muhammad waaye man Seydina Muhammad rek laa bind ngir sama bopp kon kooku sang la niki noonu mag ñu bari wax ci lu rëy rëy rëy sëriñ Touba wax na kullu nabiyin wa rasulin yatba'u xalfa wasilati huwal mutabba'u euh, bépp yonant bépp yonant la wax bàyyiwul benn profet prophète yëpp ci ginnaaw sama wasila la ñuy topp moom mooy seydina muhammadin alayhi salaatu wasalaam awax wax dëgg yàlla ñun fi ñu war a euh, xaji mooy fi ñuy fi fi doon sunu xibla ndax yàlla moo wax yonante bi صلى الله عليه وسلم فحيثما خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ساسو جيني نيغا جيل سا خار كانام جي كو تي كوتا كابا جي موي ساسو جامو يالا نانكو جوبلو تي خيبلا بي تي نون سونو خيبلا نين كو ناتي موي كعبة المشرفة كون فوفو لا نوار حاج ناخ فوفو لا يالا واخون يونت يالا ابراهيم واذن بالناس واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامرين ياتين من كل فج عميق تا لولاي بوكو خول barke boobee nga xam ni yàlla waxoon na ko Ibrahima ni ko leeral wooteel nit ñi ci aj nit ñi danañ ñëw jóge ci gox bu nekk màkk rek la am ci kaw suuf kon loole rek seede la su ci ne ma euh, kaaba gi foofu foofu la ñu war a foofu la ñu war a xaji foofu la ñu war a omrati ñun en tant que jullit yi waaye nag du du tee war nañu mën a ziyaare ji ñun jullit yi baytul muqaddis mooy zëri euh, foofee ñuy wax ndax yàlla daf ko dafa dafa dafa def barke E, wàcce fa yonent ay yonent ay e, bu bu màgg kon wax dëgg yàlla e, yonent bi jaar fa ba muy rañaan kon war nañ ko mën a ziar waaye bu dee xaj moom gi nga xam ni moom la yàlla faratal ci jullit yi ak omra wax dëgg yàlla bi nga xam ni sunna la mm, makka lañ ko wa war a defe ji man boobu jàngat laa ci am li mu wax tamit doon ko wax ak imam makka bu fekke ni wax nako ko ak imam makka wax deug yalla ci sama gis-gis ba imam makka ni ko haram haram man na wax wax jo xamni dafa reuy te tegon ko lo xamanteni do da koy da ko tek ci xam-xam fekk da ko maîtriser wul carrément parce que nit itam bala nga wax dara euh, bala nga dugg ci ben mbir war nga ci war nga ko maîtriser maîtriser ñak maîtriser bobu motax ba mu imaamu makka ak fa mu toll ca xam-xam ak fa mu toll ci pas-pas ak aqida moo tax mu ne ko xaraam xaram maanaam li nga wax dafa xaraam li nga wax dafa xaram waroo waxee noonu man noonu laa ko euh, déggee noonu laa ko jàppee euh, daal ci tënk soxna si euh, loolu daal wax dëgg yàlla man nag maa ngi koy ñaan moom moom nga xam ni moom mooy Idrissa Seck bu fekkee bu fekkee niñ déggee wax ji noonu la noonu la demee bon mu jéggulu yàlla d'abord sunu borom ndax wax naa ne la yàlla Seydina Muhammad la bind ngir boppam te yamalewu ko kenn beneen bi mooy mu jéggulu umma islaamiya bi mooy euh, nation islam bi yëpp mu jéggalu leen ndax bu leen jéggululu xol yi ndax wax dëgg yàlla am na xol yoo xam ne tey jii sax moom bëggoon nañ ko moom idi bu baax a baax euh, te commencé nañu di euh, am lu leen metti ci moom ndax bu laalee Seydina Muhammad moom képp kuy jullit képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha wa ashhadu anna muhammad rasulullah wax ca kaaba ga loolu itam il faut mu mu ñu mer il faut ñu gis seen bopp il faut kon na jéggul uma bi wax ni dafa juum ndax doomu aadama dina wax loo xam ni sax da koy teg ne moom xam na ko fekk dafa am lum ci umpale lum ci umpale nag bu fekkee ne leeralal nan ko ko ba mu leer ko na wax rek maa ngi excusez-vous maa ngi jégglu parce que nit ku mat amul yàlla rek moo mat wasalaamualeykum jàngeen jëf yéen ñu doon déglu programme la 103 point 0 première rajo scolaire du Sénégal euh, Dabakh FM ci fàttali nag tey seen reportage du jour mi ngi doon waxtaanee kàddu yi nga xamante ni di sa Seck yëkkati woon nag daal di koy wax nag ci diine ji looloo waraloo nag ñi daal di dem seeti ñenn ci askan wi ñu wax ana naka la ñu gisee loolu dégg ngeen leen ci biir reportage bi dégg ngeen ci borom xam-xam bi nekk fii ci kër gi di wuyoo ci turu oustaz Gora Sy moom it mu yëkkati ci ay kàddu leeral mbokki auditeurs yeeg auditrices yi tey lii moo nekkoon seen reportage du jour ci kàddu gi Soda Marème Ndiaye di leen ñaanal bëccëgu kooruk jaam